jëf ya saar fukk ak ca jamono jooja erod buur ba jàppoon na ay nit ci mbooloom ñi gëm ngir fitnaal leen noonu mu daldi jàpp saak doomu ndeyu yowaana mu reylu ko ci jaasi bi mu gisee nag ne mbir moomu neex na yawut ya mu daldi jàppit piyeer fekk loolu daje ak bésu màggalu yawut ga ñuy wax mburu ya amul lawiir bi mu ko jàppee mu tëj ko kaso teg ko ci loxoy ñeenti mboolooy xarikat ngir ñu wattu ko fekk mbooloo mu ci nekk di ñeenti nit amoon na yéene yóbbu ko ci kanamu yawut ya ginnaaw màggalu bésu jéggi ba noonu ñuy wattu piyeer ca kaso ba waaye mbooloom ñi gëm di ko ñaanal yàlla ak seen xol bépp bi erod nekkee ci tànk indi lu ko ca guddi googa yeewoon nañu piyeer ak ñaari càll la muy nelaw diggante ñaari xarekat te ay xarekat di wattu buntu kaso ba ca saasa malaakam borom bi ñëw te leer ne ràyyi ca néeg ba malaaka ma dóor piyeer ci wetam yee ko ne ko jógal bu gaaw noonu jëng yarot ciy loxoom malaaka ma ne ko takkal sa geño te sol say dàll mu def ko malaaka ma ne ko solal sa mbubb te topp ci man piyeer génn topp ca malaaka ma fekk gëmul sax ne lu am la waaye mu yaakaar ne peeñu la noonu ñu weesu wattukat bu jëkk ba ak ba ca tegu ñu egsi ca buntu weñ ba jëm ca dëkk ba mu daldi ubbikul boppam ci seen kanam ñu génn nag jaar ci benn mbedd malaaka ma daldi ko bàyyi bi xelam dellusee ci moom piyeer ne léegi xam naa ci lu wóor ne borom bi yónni na malaakaam musal ma ci loxoy erod ak li ma yawut ya yéene woon lépp mu rabal xelam ci loolu daldi dem kër maryaama ndeyu yowaana mi ñuy wooye màrk fekk ñu bari booloo fa di ñaan ci yàlla noonu piyeer fëgg buntu kër ga te mbindaan mu tudd rood wuyusi ko mu xàmmi baatu piyeer bég ci ba fàtte koo ubbil waaye mu daw ci biir xamle ne piyeer a nga ca bunt ba ñu ne ko xanaa dangaa dof waaye mu dëgër ci li mu wax noonu ñu ne ko xanaa malaakaam la fekk piyeer di gën a fëgg noonu ñu tijji gis ko daldi waaru piyeer taf loxoom ci gémmiñam ngir ñu noppi daldi leen nettali ni ko borom bi génnee ca kaso ba mu ne leen te ngeen jottali ko saak ak mbokk ya bi mu ko waxee mu jóge fa dem feneen bi bët setee nag yëngu-yëngu bu réy am na ca xarekat ya ñu ne ana piyeer noonu araat wutlu ko waaye gisu ko kon mu àtte wattukat ya joxe ndigalu rey leen bi loolu amee erod jóge ci diiwaanu yude dem dëkku sesaare toog fa fekk mu nekk ci xëccoo bu tàng ak waa dëkki tiir ak sidon naka noonu ñu ànd bëgg koo gis ñu neexal blastus bëkk néegu buur ba di ñaan jàmm ndaxte réewu buur ba moo doon dundal seen bos ca bés ba ñu jàpp nag erod sol mbubbu buuram toog ca jal ba ca àttekaay ba di leen yedd ak a dénk noonu mbooloo mi du yuuxu naan lii baatu yàlla la du baatu nit te saasa nag gannaaw màggalul yàlla malaakam boroom bi fàdd ko te ay sax dugg ko ba mu dee moona kàddug boroom bi di gën a màgg tey law naka barnabaas ak sawol bi ñu matalee seen liggéey ñu jege yerusalem ñibbi ànd ak yowaan mi tudd màrk